fahimni al ilma wa sidni ilma wa amalan wa adaban wa fahma mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi dellu si waat di leen nuyu di leen siyaare bu baax ci seen jataay seen jataay bu jataayu xam-xam bi ñu yàgg amal muy jataayu majalis daarul maarif al islamiya di ko ànd ak télé bi ci jumaa ji eh, ci saytu muqaddimatul xidma ak mboolem Eh, ñi ñu àndal liggéey bi ñëpp di teg siyaar bi ci njiit li sëriñ xaafiya di ko jaarale ci waa eh, commission communication di ko jaar ci sëriñ bu Khadir Bousso ak liggéey bi ñëpp suñ mbooleem ñi ñuy jàppale ci technique bi ginnaaw di jéglu bu baax ci bër gi naa kii tuuti ñi ngi woon ak yéen kon tasawudu si xaar jotoon nañu am ñeenti bunt jotoon nañu am imaanu billahi ak imaanu bil malaikati ak imaanu bil kutubi samawiya ak imaanu bil rusuli ginnaaw bi ñu xamee ne imaan juróom-benn xaaj la amoon nañ ñeenti yi tey nag ñu a tàmbaleeg kon ci imaanu bil fil yawmil axir du juróomeelu xaaj ci imaan mu ne faslun aji teqale la fil yawmil axir ci bis mu mujj ba kafaana allahu yàlla fegal yàlla mi nga xam ne taala kawe na ahwaalahu ay tiitaangeem moom bis boobu di yomal ah, dog bi kon chapitre bi mi ngi wax ci gëm bisu yomal xiyaam bis muj boobu di ñaan ci suñu borom eh, tiitaange ya fay nekk nekk suñu kumpa yàlla na suñu borom def imaanukum seenu gëm bil yawmil aaxir ci bis bu mujj ba bii ci moom wa billadi ak la xam ne xad tawa làq na ko moom bis bu ba fanta bi yowul yow miy jàng kan nasr lu mel ne que wisaaroo ga maanaam dekk ga wal asri ak pang ba mooy dajale ga wal misaani ak balaas ba dégg kaw balaas ba bañu bañuy peesee jëf yi wal xawdi ak déeg ba muy déggu kawsara wal janati ak àjjana wa niiraani ak sawara waka ziraati ak na ko yoon wa wal muróori ak romb ga ñu romb ca ziraat mooy pont boobu wal xisaab ak seet ga jëf ya mooy calcul gi ñuy calcul ku nekk li mu defoon ci lu baax ak lu bon wa kasafaati nabi ak naka ramu yonente bi alayhi salaatu wasalaam wal xiqaab ak mbugal bi it na def safaatul kubra niñ ko xamee ci addis yu bëree bëri wal xiqaab ak ma ñi nga xam ne seen yomal xiyaam bu ndaw taroona ñu war leen a mbugal ci seeni bàmmeel yàlla nañu ump mu kon bunt bi pas-pas yu bari moo ci nekk yoo xam ne dañ ko war a jàpp dañ ko war a jàpp gëm ko téye ko noonu ci iman la bokk moom juróom-benneelu xaaj bii di gëm gëm ndogal ba bokk na ci yooyu ñu war a gëm mooy gëm ne bis boobu di yowmal xiyaam bis bu ñëw lay doon alladina yuminuuna bil xaybi wa yuqimuuna salaa nga xam ne gëm kumpa bokk na ci kumpa yi gën a yéeme ñu war koo gëm am ci pas-pas bu dëgër bu leer mooy gëm ne bis bi nga xam ne suñ borom ci lay fay nit ñi ñu koy wax bis bu mujj ba dana teru dana am gëm ko ne dana am gëmin ne la la fay xew lépp dëgg la bokk na ci la fay xew lu mel ne dekk nga fay am Eh, lu mel ne dajale gi ñu dajale nit ñi ci saahira kooku alquran di wax eh, gëmit ne am na ab balaas bu fa nekk boo xam ne danañ fay peesee fi nit ñi fa ma man zaxulat mawasinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa ama man xaffat mawasinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya naarun xamiya moom it balaas boobu ñu gëm ko eh, gëmit gu kawsara déeg bi nga xam ne ca lay ca la ñuy sangu laata ñuy dem aljanna mu ci sangoo ba pare mu defaraat ñu euh, delluwaat ci waxambaane ak yi ni mel ay pas-pas yu bari aju na ci loolu téere yi ci ñëwaat ci kanam danañ ci gën a yaatal dañuy bañ xoos gi xaw a sonal ki toll ci téere bi bokk na ci pas-pas yi ñu fa mooy gëm ne aljanna am na mooy kërug fay gi nga xam ne ñu doon def lu baax ëllëgëmal xiyaam moom lañ leen di añale euh, kër ga ñuy wooyee sawara it ñu gëmin ne lu am la lu fa am la mooy ñi nga xam ne dañ doon def ab safaan ak di topp seen bakkan ak di def li yàlla tere yàlla nañ ci yàlla musal muy kër ga nga xam ne maanu teg suñ borom mu leen fa yóbbu gëmit ne siraat am na pont boo xam ne la euh, dañ koy gàll ci kaw sawara sawara si jahannam buñ jugee saaxira war a dem aljanna daal koy traversé jàll moom pont boobu it ñu gëm ne jëmmi pont bi am na daal di it bokk na ci dañ koy gëm ba pare doog a gëm almuruur gëmin ne pont ba danañ ko romb danañ ko traversé ngir jàll gëmin na ci bis boobu ya fay xew bokk na ci mooy seet jëf yi calcul waaw euh, faman uti kitaabahu bi yamini fa sawfa yuhaasabu xisaaban yasiran wa yanqalibu ila ahli masrura gëm ne suñ boroom donte dana yeexa dana dana day mel ne lu ko yeex a def ngir metti di wa nga xam ne nit ñi danañ ko dund muy yeex a seet ay jëf waaye seet moom calcul ku koy def la lu yomb la ci moom lu gaaw la la ci moom eh, ku gaaw nu muy seete ay jëf la ni ko alxuraan waxee ba tey gëm it ca pas-pas yañ fay am bokk na ci mooy ñu gëm ràmm waaw baat bu ràmm ni ngeen ko xamee ci alxuraan ñeent xaaj yim ci ñëwee usul yu ne di ko wax mooy dëppoo nañ ci ne nit ku baax ab jullit dana ko defal mbokkum jullitam xaw nañoo dëppoo it ci ne ab yeefar mënu koo defal mbokkum yeefaram dëppoo nañ ci fa sikki sàkk day am rek mooy ndax nit ku baax mën na ko defal ab jullit mën na ko defal ab yeefar wala déedéet noonu ñu bu addis ba wéree ba doon wax ci taxfiif gi nga xam ne am na ci kenn ci ñi jege woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon day mel ne ab jullit foofu ak ram moom jariñ na koo xam ne du ab jullit ba tey bokk na ci ñu fa gëm muy ak sawara gëm ne àjjana lu am na lu am la ak fa xew wa fiha ma tastahihi l anfus wa talasul ayun wa antum fiha xaalidun lépp lu bakkan bëgg rek di ko foytu ma nga fa lépp loo xam ne bët bët gis na ko muy neex ma nga fa daanaka jërul détail nag lu mu mën di doon rek ci lu neex jàppale ma nga fa ah, sawara it nga gëm ne ma nga fa kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan xayraha li yaduqul azab lépp luy metti rek ma nga fa waaw bu dee ci siraat eh, buñ fa ne bu dee ci taxawaayu àjjana boobe sax daga gis ñoo xam ne seeni ñaq day tolloog seen këri ndaggu am ñoo xam ne seeni ñaq ñaq day tolloog seen laxu tànk am ñu muy àgg ci seen digg am ñu ñu muy dem ba ba laabal leen maanaam ba ba ba àgg ci seen gimiñ ngalaab leen ñu mën caa fay fay loolu day ça dépend ci nit ki ak ñi ay jëfam ju baax tolloon mune ne bis boobu nag kon pas-pas yooyu yëpp yooyu yëpp luy xewle ca bis ba yoo xam ne des ko war a gëm ñu gëmin ne yu xaasa bu def na seet jëf yi almar cams xalal xidmiir yi ci lu tuuti ba toll nekk xidmiir maal fatil ànd ak fatil wa ala naqiir ak naqiir dana ko firi mu ne wal farxu teqale ga maanaam firi ga bayna luxati naqiir yi diggante waxi naqiir wa luxatil fatil yi ak waxi fatil wal xidmiir ak xidmiir buñ bëggee firi nag naqiir ak fatil ak xidmiir mu ne naqiruha naqir zeen dahru nawaati mooy bitib jokkooy ba boo xoolee xooxu tàndarma bi am na lu mel ne ab bën bu bu ndaw bu ca nekk bu ñuul loolu la ñu tomb tomb boobu la ñu tuddee naqir wal fatilu fatil nag yëkkoon dina nekk fii batiniha ca biir boo xoolee xoox bi am na ak buum gu weex gu ndaw gu fay nekk buum gu toll noonu moo tax mu ne la yëkkoon dina nekk fii batiniha ca biir mayis jeqeel maanaam ràññee yaa nabilu yow aji xellu ji wal xisratul baydaa baydaau wal xisratul baydaau xollit wu weex wa fi tafsir yi ci firi nag xiyallat yi mooy la nga xam ne yeddoona ñoom borom xam-xam yi danañ ko wooyee bil xidmiir yi ci xidmiir xollit wu weex bi koy am nag mooy xidmiir euh, bas balance ba fa am day balance boo xam ne bu xassaasa la buy yëg la ak lu mu néew néew tomb tomb soosu boo ko dindi woon ci xoox bi teg ko ci dana dana xam ñaata lay peese ci poids wala wëñ gu ndaw googu boo ko ci tegee dana xam ñaata lay peese ci poids xollitu tàndarma weex boobu boo ko ci tegee dana xam ñaata lay peese ci poids waaw loolu day wane ne rek wala yaslimu rabbuka ahada sa borom du tooñ dara du tooñ kenn ci lenn lu mu ca def ci lu baax ci lu toll noonu dana balaas ba dana ko wane lu mu ca def ci safaan it wala xiyaasu billah balaas ba dana ko wane wa yaqaxu dana tàbbi mooy dana am alxisaasu fayantooga bayna jamma diggante njëkk mooy xar mu amut ay béjjën wa bayna xar naa ak diggante xar mu ami béjjën li adlin ngir ak maanu goo xam ne sama am na foofee waaw mu ne nag balaas boobee eh, noonu mu ko leerale woon daañu nag ba tey ci wàllu fayantoo nit lu mu defoon ci lu baax lu la nit tooñoon ngir ëpp la doole di la ko wan ëllëg yomal xiyam fayantoo dana ci am ba àgg na ci sax ba ci bàyyima yi bàyyima bi nga xam ne njëkk la mooy amul ay béjjën ak bàyyima bi amoon ay béjjën bu koy jaay doole béjjën wi amoon ba daan ko ci noggatu ëllëg ba leen dekkal bi amutoon ay béjjén bi amoon i béjjén ñu foq ay béjjénam saxar bale béjjén mu fay pare ñu doog leen defaat suuf sakartuhu moom Sëriñ Tuubaa nag mu ne sakartuhu sant naa ko moom saaboroom ala firaax yi ci tàqalee gi ma tàqaleeg alxisaab seet jëf wa jaxalihi akuk defam kulliyet yi sama lépp xayra ixtisaab di ngeen ñi sàkku tuyaaba mu ne man suñu borom it maa ngi koy sant bu baax man samay mbir ëllëg yowmal xiyaam dañ may lek xisaab kenn du seet samay jëf lépp lu baax la sama lépp it da koo def muy ngën ji luy sàkku tuyaaba ci saa mu ne mawtun faatu suaalun ak laaj gi ñuy laaj wa adabul xabri ak mbëggalum mbàmmeel loolu lépp yadxulu dee tàbbi fil yawmil aziim ci bis bu màgg boobee fadri xamal li ma la wax isil xiyaamatu ngir na ko yowmal xiyaam taxawaay boobu di yowmal xiyaam xiyaamataani ñaari yowmal xiyaam la suxraa bu ndawee te mooy mamaatu kulli ma insaani faatu képp ci nit ñi maanaam maa maa googu ziyaada la dañ ko ca yokk wa baadaha ginnaaw boobu it al kubra mooy xiyaama bu mag ba wa tilka boobale xiyaama nag an nafxu moo di walga fi suuri ci baftu ba laa yeeti man nag muy dikke ma bii samam njaay fasxun ci firi ci perte waaw mu ne nag kon euh, faatu ak laaj gi ñuy laaj nit ki ci bàmmeelam ak mbëggalum bàmmeel loolu lépp ci yowmal xiyaam la bokk ndax yowmal xiyaam xiyaama day ñaari yowmal xiyaam nit ku faatu rek sa xiyaama taxaw na buñ demee ba yowmal xiyaam jot nag baneen xiyaama bu mag ba daal doo taxaw waaw loolu tekkiwut ne bu faatoo ca sansa ndax gis nañ ci alxuraan mu koy teqale toujours ci nit yi firawna yooyu mu wane ne biñ faatoo ci seen biir bàmmeel ña ngi leen fay mbugal waaye yowma taqumu saa buñ demee buñ demee ba xiyaama taxaw taxaw nag ba ñu lijjanti mbir yi ba pare ci lañ doog a wax du xulu ala firawna azaddal asab ci lañ leen di doog a dugal ñu tàbbi mbugal mi gën a tar loolu mooy mbugal ma gën a tar mooy faneen fu bokk ak fi ñu nekkoon eh, muy barsax bi ñu nekkoon di at di di xaar mu bokk ci xiyaama gi waaye nag ñu dugal leen ca sawara sa nga xam ne mooy kër kër gu muj ga ca ñeme ñemel noonu sëriñ bi nag daal ci teg ne eh, bu boobee nag man lépp loo xam ne <coughs> jaayante woon naa ko ci sama borom ci li daganoon ci man amul lenn loo xam ne eh, ak firee ko amaat am na ci kon foofu la buntub juróomeel ba yem ñu jàll ak ci buntub euh, buntu bu buntu bu mujj bi ci imaan muy al imaanu bil xadari daal ne faslu aji teqale fil imaani ci gëm bil xadari ca dogal ba alladi ba dogal ba nga xam ne laa yuwajjihu du jubale ila naasimi ci aji way ji say an dara min al xadari ci ay nax-nax buntub juróom benneel bii nga xam ne mooy juróom-benneelu xaaj ci imaan imaanu bil xadari ci imaanu bil xadari mooy eh, bi nga xam ne day jàngale wàllu dogal bi mooy bunt bu mujj bi eh, kon bi ñu xamee ne imaan juróom-benn xaaj la woon jàngoon nañ imaanu billahi ak ñett xaaj ci aju jàngoon nañ imaanu bil malaikati ak ñett xaaj ci aju jàngoon nañ imaanu bil kutubi samawiya ak xaaj ci aju yi ñu war a xam seen seeni tur gen yañ war yi nga xam ne jëru ko matu ko c'est pas obligatoire jàngoon nañ it euh, imaanu bi rusuli seenub lim cent vingt quatre mille euh, ñaar fukki ñëw ci alxuraan ak juróom euh, yooyu ak ñi nga xam ne ñoo ci gëm ak yooyu yëpp ñi ñu war a xam seeni tur jàngoon nañ léegi it juróomeel ba muy imaanu al imaanu bil yawmil axir gëm bis bu mujj ba léegi ñu ñëw ci bu mujj bi mooy gëm dogalub suñ borom al imaanu bil xadar loolu it ci pas-pas yi nit ko war a pas la bokk mooy juróom imaan fii la fii la ko tàmbale daan imaan imaanukum seenu gëm bi xadari rahmaani ci dogalub saa borom mi aji yërëme ja al akram ma di aji tàdd al mu amini kadi aji wóolu al mannaani kadi xeewalaa kon tasdiqukum moo di seen dëggal bi anna kulla ma waqa naka lépp loo xam ne am na tàbbi na mooy am na fii sërin ci li nëbb aw fii xaalan wala ci feeñ xëy su yaqaax fu mu fi amee mooy fu mu tàbbee ngeen xam ne loolu kat bi ilmi rabbina mi ngi ci xam suñu boroom wa bil iraada mi ngi ci nammeelug suñu boroom wal xudra mi ngi ci dogalug suñu boroom allati dogal ba nga xam ne nag tur yi day wane ifaada njariñ rek xayran moo xam aw yiw la yiw wi nga xam ne ka taati ibadillaahi naka topp yàlla topp yàlla jaami yàlla yii di jullit ñi aw aksuhu wala safaanu aw aw yiw ka zahi lu mel ne ka dox fil manaahi ci la niñ tere lu mel ne mooy kat yàlla yi mooy yàlla gañu nekk waaw mu ne mu tàmbalee ko kontaane daane pas-pas nga war a am ci imaan mooy imaanu bil xadari mooy ci saa borom gëm dogalub saa borom bi mooy da indi di dëggal ne lépp lu am rek ak nu mu mën a mën di amee moo xam lu nëbb la wala lu feeñ la ak fu mu mën di amee ñu gëm ne loolu suñu borom xam na ko suñu borom moo ko bëggee noonu moo ko bëggee noonu moo tax mu dogale ko noonu mu dogale ko noonu ak fu mu mën di amee rek ñu xam ne loolee it lu baax rek lay indi xasa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum bariwaana bu ngeen di bañ a dara fekk moo gën ci yéen comme xasa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum ba tey bariwaana bu ngeen di bëggee dara fekk loolu gëñu gënutoon ci yéen moo tax yàlla day xool li gën ci jaam jaamam bi mu koy defal moo tax mu ne dogal bi bu fekkee daa indi aw yiw lu mel ne ñuy topp yàlla yàlla defal leen tawfeex tàggata leen ak ak mën a jaamu yàlla bañ koy topp loolu ñu xam ne suñ borom a ko dogale noonu safaan ba ñi mooy yàlla ñi nga xam dañuy def dañuy dañuy dox toujours ci li li suñu borom di tare ñu xam ne ba tey suñu borom moo ko dogale noonu aw kaana wala dogal bi nekk xulwan di lu neex ka sababil muslimin na ko yooli jullit ñi aw kaana wala mu nekk murran di lu weex ka xeqaabil mujrimin naka mbugalu waay tooñ yi fa kullu sa in bépp yëf rek xat jaraa boo xam ne daw na fi zahirin ci li feeñ aw baatin wala li nëbb ñu xam ne xadru rabbi dogalu saa borom la alqaahiri ma di notaa suñ borom mi nga xam ne moo féete moo féete lépp kaw moo not lépp moo ko tiim lépp loo xam ne am na moo xam lu neex la jullit ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla yàlla leen fay ay tuyaaba la yawmal xiyaam ca àjjana wala mu koy anticiper anticiper fii ci àdduna wa uslifatil jannatu lil muttaqina xayra baid wala mu nekk am mbugal mu nekk koo xam ne yàlla da ko war a tàbbal sawara léegi-léegi sax nga gis kum ko anticiper fii laata muy dem loolu it bari na fuñ ko fu ñu koy gisee ah, nit ki bu mu jàpp ne rek bu nekkee ci ab safaan léeg-léeg nga gis koo xam ne da nekk ci ab safaan waaye mujj gu ñaaw la ko ci yàlla mujj def mooy safaan ba mu nekkoon ca ko suñu borom di mujj faate gis nañ ko ni ko alxuraan di waxee toujours ah, lu man di am daal ñu gëm ne ak fu mu man di amee ak nu mu man di amee rek saa borom mooy ka dogal loole suñ borom mi nga xam ne moo ko moo ko not lépp moo tiim lépp moo ko féete kaw moo tax mu ne xaadaruhu dogalub suñ borom ba xaada wa mën na almuna jëm mébét ja almuna mébét ja bila kadar ci lu nax-nax li man yuxibu ñeel ñeel ki bëgg saa borom waaw ki nga xam ne suñ borom bëgg na kookee uma xaata te suñ borom faral far ab dara lor xanu ci moom xaadaruhu dogal dogalam bayit saaxa màng na alxiqaab mbugal wal xisaab ak seet jëf li xayri man jëmee ko ci kaneen kudul ka nga xam ne yuhibbuhu dana ko bëgg maa xijaab ànd ak kiiraay mu ne dogal suñ borom bi it mooy mooy jël mébét nit ki lim bëgg ci lu moy ànd ak benn nax-nax waaw di ko jox suñ borom mooy dogal ci moo ko dogalee noonu ci moom moo koy faral it bépp lor lor yim doon bañ ba du ci moom ca daanaka lor yi nit ki bañ rek mooy bañ a texee di tabbi àjjana ak bañ a texee di Eh, dogalum suñ borom mooy liy indi mbugal mbugalum sa mbugalum sawara mbugalum bàmmeel ak seeti jëf yey am ëllëg ca taxawaay ba loolu suñ loolu lépp suñ borom moo ko dogale noonu waaye nag loolu mi ngi koy far mi ngi koy defal nag ki nga xam ne suñ borom bëggul kooku ki nga xam ne warut a texe ki nga xam ne saa borom daa war a jaarale baaraas digganteem ak moom loolu dogal suñu borom la suñu borom dogal ci moom moo tax mu ne wajaba war na al imaanu gëm ne anal azara naka jeexit li rabbinaa ñeel la suñu borom. wala kon der mi nekk li la war a ñel mi ndeef jeexit mooy li topp ci dara boo tojoon ab kaas boo ko sànni woon mu mu far toj léeg nga sànnim kaas tu toj boo ko sànnee toj ga tasar mooy la topp ca sànni ga loolu mooy jeexit loolu suñ borom mooy dogale na daa bëgg mu toj mu toj bu dogalee na bëggul mu toj du toj Seydina Ibrahim biñ ko dugalee ci sawara sa sànni woon nañ ko ca sawara bu doon ci logique lay doon la ca topp mooy daa war a faatu war a lakk waaye jeexit jeexit ja moo ca moo ca toppatoon da jeexit dogal ba mooy suñ borom moo ca toftalewut ak lak moo tof toftalewut ak faatu moo tax amutoon jeexit yooyu mooy loolu. moo tax moo ne mu ne loolu nag laysa yakun din mi nekk fi jamiil aalamiina ci mboolem mbindeef yi mu assirun aji jeexit fii azrin ma ci jeexit bu mën di doon saali al yaqin moo di kóolute ga mu ne loolu nag jeexitu dogal bu mel noonu nag moom waaw amul kenn ku koy def ku dul dogalu suñ borom bi dogalu suñ borom bi rek moo mën a mooy dogal dara mu ànd jeexit waaye mu leen lu ñu tënk ci yàlla loo xam ne dañ naan lii bu amee logique ba mooy lee lee moo ca war a topp kon manes naa taxaw ni foofu eh, di di di ko résumé waat mooy jàngoon nañ ni islaam ñetti xaaj la eh, di jàngoon nañ ne diina ñett xaaj la aqsaamu diina rabbina al imaanu wa bahada al islaamu al ihsaanu mooy imaanu billahi ak ak islaam ak ihsaan imaan jàngoon nañ ne benn xaaj la muy gëm yàlla ñu ja ñu tàqale woon ko ci ñetti xaaj yi tolloo kii doog a tàmbale muy gëm yi war ci suñ borom muy ñaar fukki melo gëm yi yi jomb ci suñ borom muy ñaar fukki melo ak li jaadu ci moom bañ ca jógee jàngoon nañ gëm malaayika yi jàngoon nañ gëm téere yi muy ñetteel ba ñeenteel ba jàngoon nañ gëm yonente yi juróomeel ba jàngoon nañ gëm bisu yowmal xiyaam juróom benneel ba mooy bi ci mujj mooy jàngoon nañ gëm dogal bi juróom benn xaaj yooyu mooy xaaji imaan ni mu ñëwee ci addisu sayyidina jibril ba noonu la ko sëriñ bi tënk fii leeral ko muy la am solo wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallim waj'al binaa'iya binaa'a ilmi wa amalin bi sunnatin wa hilmi